ImproTV, la chaîne du renouveau.

Estat général foot bi nekk ci diwanu Bambilor tay ñom ñi nga xam modi l'équipe euh, champion tenant en titre ñom ñi nga xam ñom ñoo jël nawetaan bi passé di préparer seen nawetaan en même temps aussi di préparer li nga xam modi départemental damay dugg ci biir daal leen ni fekk ñom ñi nga xam modi AIC Goxam 2 donc ñom ñi nga xam te ñom ñoo jël coupe bi nga xam modi coupe nawetaan 2023 bi nga xam mo passé ñom ñoom ñoo door ki nga xam modi euh, FCD bu ñom ñoom lañu euh, donc di préparer seen match nawetaan ak sen match départemental donc ñu dugg ci biir stade général foot Bambilor fekk fi nga xam eh, G2 de Goxom 2 il a des rôles ni ñuy préparé nawetaan préparé entraînement li nga xam dépla délachement de Staforla du moins eh, préparé entraînement bi nga xam moo entraînement wu nawetaan ak li nga xam premier match départemental gars il ñu dem l'équipe l'équipe de G2 de Goxom 2 gars sur Impro TV dans votre émission au rythme de nawetaan fii lay xewee bëgg naa leen baax a baax a baax la mën di espoir famille nawetaan la ñuy wax ak ay baaxaam ñu dem gars hein, dans votre émission au rythme de nawetaan sur Impro TV la chaîne du renouveau nous sommes là avec ce soir avec l'ASC euh, G2 de Gorom 2 donc ñoom ñi nga xam mooy l'équipe tenant du titre ñoom ñoo jël li nga xam coupe coupe bi donc maa ngi ni taxaw ak un ancien joueur de de de l'ASC euh, actuel euh, secrétaire général de l'ASC donc moom ancien joueur le won ci ASC bi légui mom mo nek le secrétaire général de l'ASC il a fait ses il a fait ses preuves ci li nga xam moom équipe bi ak li nga xam modi di commune Bambilor commune Sangalkam département de Rufisque daal di ñëw tey li nga xam mooy le secrétaire général de Pencum Gorom 2 donc mom lañuy ñuy mu dal présenter wu ñu gaay xam ñoko ko suivre dans votre émission au rythme de Néondane

ñu ñëwaat donc bokk ci effectif bi wala bokk da ngeen di maintenir effectif bi wala bokk da ngeen di maintenir li fi nekkoon yëpp kenn doolewu ci. waaw loolu moom dinaa ci sawar a tontu. Mhm. en fait daaw suñu effectif bi nga xamante ne nii moom lañ amoon. Mhm. dañ ko maintenir mooy la CAP. ok yàlla dogal na amuñ benn jour aussi bu démissionné jóge ASC Gorom. dem footballé wat ci benen équipe donc Amul. bobu non non dañ ko okay. dañ ko dañ ko réussir yalla mo si mo ñu may lol ñu mën ko réussir Donc, -hmm. en fait aussi on a fait des recrues plus de 14 joueurs yo xamantene ni démissionnel nañ len ñu ñëw rejoindre cet effectif là plus de 14 jours ouais de 14 jours waouh

waxtaan ak yow wax la aussi li nga xamante ne ni mooy condition yi ñu mën mhm. yow aussi nga wax ñu tey condition liñ ci man ñu def ko liñ ci mhm. mënul ñu ne la ah ñun kat lii la ñu mën d'accord parce que Gorom dafa nekk équipe boo xamante ne ni mhm. équipe bu mag la seeti nañ jour mu ñëw gratuitement ñëw footballal équipe bu Gorom si ces quinze démissions là am na si ñoo xamante dañuy ñëw rejoindre effectif bi am ñoo xamante ne ñu tegal leur condition ñenn ñi ñu man ko ku ñu mënul condition yi nga wax dañ la naan carrément on ne parce que nawetaan dafa gudd tànk. Mhm. te joueur bi aussi loolu la am. Mhm. pour mën ci sukkandiku mën ci faj tous ses donc mhm. yow su fekkante ne da nga ko dig benn offre bi rek tu ne peux pas le faire après sa relation ak nit kooku noonu dafay dafay daal di indi ay couac yu bëri. d'accord te je pense que ne loolu football jaru ko moo tax tout le temps je me dis que ne lépp looy wax un jour rek. boobu mën la defal les résultats yi nga xamante ne ni c'est ça que tu attends de en tant que le secrétaire général ñu gis ne léegi gars yi ba dañuy wax ne plateforme yi gars yi ñu ko li nee naan ñu ne leen sécurisé nag yow en tant que le secrétaire général de l'ASC euh, Gorom 2 mhm. est-ce que sa plateforme sécurisé nañ ko yan jafe-jafe nga ci am wala nga ci gis loo xamante <coughs> nii lu ma dérangé la parce que au moment où que nawetaan di démarrer. Mhm. bi ma ubbee sama plateforme. Mhm. déjà li ma njëkk a def mooy changer sama mot de passe. ok déjà loolu laa njëkk def changer sama mot de passe. am na mot de passe bi nag ñoo xamante ne ni des membres de l'ASC mën naa leen ko passer à leur téléphone pour sama téléphone bu yàqoo ñoom ñu mën a am. benn continuité bi. ci ci ci ci sañuy référence sur licence mhm, mhm. mais je me dis que ne aussi peut-être xam nga xam dafa xaw a garaaw. Mhm. yow mën nga yor sa téléphone mu nga jël téléphone keneen dugal sa plateforme bàyyi ak nit ki. nit teg ko keneen ñëw vérifier fekk ka fi. bu ko defee moom day am toutes les données. lu ko neex après mën na ko si def donc. te euh, à part ODCAV je ne ne am na keneen koo xamante nii mën na amaat accès. amul benn ASC bu mën a am accès. si mhm. biir plateforme jàmbur. d' accord mënul nekk. donc mhm. jour boo démissionné rek. Mhm. dèjà moom automatiquement rek démission ak filiation bi day dem plateforme bi direct. waaw day muy am licence. waaw day ñëw sa plateforme direct. avant muy am licence parce que dèjà bu démissionné. kee bu tàppee si licence bi rek. dootul am information ci jour boobu. ñu croix ko. croix rouge ok loolu moom moo lay wanal ne yow kii pare na ak yow. bokkatul si sa saison. Mhm. mais des nag nga dégg nit démissionné la ñu ne la non licence ngi sama plateforme ba léegi. mais mhm. parce que joueur bi kenn déposé la ko gën licence. Mhm. mais boo tapé ci biir licence bi yow sa plateforme on te dit ne licence bi mënatoo si am information parce que joueur bi démissionné na dem ASC sangam. d'accord naka ngeen di préparé football nawetaan. football li nga xam moo di départemental ñaari compétition ngeen bëgg ko def ci benn année donc c'est bien que ni maîtriser ngeen ko xam ngeen ko parce que l'année passée def ngeen ko. mais cette année ci nekk ngeen koy préparé. waaw par rapport à l'année précédente daf ñu daf ñu jox ay leçons. parce que l'année précédente bi ñuy dem on n'avait pas d'objectif sur les phases départementales. parce que dañu demoon rek ngir bañ am des pénalités par rapport à l'ODCAV ñu amaan ñu ainsi de suite notre objectif était. Mhm. de prendre la zonale. objectif bobu la amone yalla dogal aussi ñu réussir ko. ok cette année ci ñu né ah on va faire. Mhm. un pas en avant comme que dans bi ñu commune Bambilor ba légui mhm. amul ben équipe bo xamantene ni dans notre commune dem na. en demi-finale départementale. Mhm. wala bokk na ci carré d'as départemental. ñu né ah ñun ASC Gorom 2 on va faire quelque chose on va prouver au département de Rifis que la commune de Bambilor existe bel et bien dans le département donc ce qu'on a fait nous, avec l'appui de pas mal de gens je mm-hmm. bu pas mal de gens mën le président Samgay, mm-hmm. qui est le président sortant de l'ASC Gorom 2 mm-hmm. avec le maire Gandiop qui nous a beaucoup soutenus cette année-ci, pour ces recrutements, il nous a beaucoup soutenus, mhm. quoi qu'on puisse dire. Tay, lu ASC de ñëmé rek, mhm. c'est grâce à lui mom motax mhm. ñu ñëmé ko. Tay notre objectif est d'atteindre les phases départementales dem ba fa nga xamantene ni nii. fa la ñu ko tek ñu coppati ko indil ko la population de Gorom ndax Gorom rek mom lañ mo ñu ñor ak commune Bamilor. c'est possible hein dem ci départemental indi ko commune Bamilor indi ko li nga xam moo eh, Gorom 2 c'est possible hein won ko waxee wala ko moo parce que y a pas mal de jeunes joueurs que je vois aussi gis na fi ay joueurs yu bëri yoo xam te kat fi la nekkoon daw ñu doli wat yeneen 14 yo xam te kat dañu yok très doli ñeex et je pense beneen bi que après les nawetaan après cette émission durant les nawetaan di ngeen gis li nga xam moo surprise bi nga xam te Gorom 2 réservé na li nga xam te moo Eh, département de réserver ko li nga xam di commune bu Bambilor réserver ko aussi li nga xam di les supporters de l'ASC eh, Gorom 2 ci côté joueurs nga xam ay joueurs yu talent am talent la jëli ñu leen fii donc lan ngay wax ñi nga xam ñoo di wax jaune ci côté nawetaan lu ñu war yokk ak li ngeen xam kay ni kat bëgg ngeen ko ak kuntukut kut jaune def ko waaw bon ñun li ñuy xaar ci waa zone mooy mu appuyer ñi nga xamante ne ni dañu dem dans les phases départementales que muy l'ASC Gorom 2 l'ASC FCD. Mhm. l'ASC Lacret Ba et l'ASC Medina Bambilor. ok parce que quoi qu'on puisse dire ñoom ñoo représente la commune de Bambilor. Mhm. kon donc ñooñu zone war nañ def le tout que bu ñuy fubal. wala ñu ñu organiser leen ci benn journée rek jeune war na def le tout que mu appuyer leen ci pas mal de choses parce que tey booy xool soo ñëwee di football départemental mhm. équipe bi dañ fay néew doole dañ fay néew doole da ngay ñëw da nga am loo xamante ne da nga koy gis. Mm-hmm. yeneen zone yu Tëngéej ñu leen koy appuyer par rapport au si si si seen organisme nu mu demee. Mhm. mais tey boo xoolee tourner sa ginnaaw doo gis benn membre du zone boo xamante ne nii. Mhm. xam nga dina la permettre euh, di di di dina la permettre yow nga mën a am gën a am fulla ak fayda ci li nga ci li nga nekk. Mhm. di remercier aussi en passage Ousseynou Dieng. ak Ousseynou Ndiaye. voilà ñun daaw bi ñuy fubal nawetaan pratiquement suñu phase départementale bi ñu tourné gis nañ leen peut-être am na am na ay consignes ak détails yoo xamante ne ni mënuñu ko wax par hasard nii. Mhm. mais fa dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaan ñu gën redoubler d'effort sur ce sens là. d'accord mhm. merci beaucoup EG donc on naa la bu baax merci ah. beaucoup dama lay bàyyiwaat nga daal dem wéyal liggéey bi ak li nga xam moo équipe bi préparant li nga moo di départemental ak nawetaan bi donc ma daal di xaarandi ki nga xam te ne nii moo di keneen ci ñoom gars yi ñu daal koy dalal seen plateau au rythme de nawetaan donc gars yi ñu jël beneen élément ci li nga xam moo di euh, Gorom 2 waaye ñoom lañ seet tey si seen stade général foot Bambilor gars yi ñu xoolee waat Gorom 2 ñëwaat comme vous le voyez nous sommes toujours avec l'ASC euh, Gorom 2 donc G2 ngeen gën a wala Gorom 2 rek donc fii ñu nekk nag mooy stade général euh, foot bu euh, bamlor donc ma ngi taxaw ak nga xam di président commission euh, sport donc mom mi nga xam te recrutement yi ngeen di dégg ci ASC Gorom 2 yëpp moom moo def ya 14 recrutement yo xam te ni kat ASC Gorom 2 def nako ko ren dolleeg effectif bi nga xam do def ko gardé woon maanaam fa yok ci rek dolu neex donc grand cheikh ma ngi lay nuyu di cheikh ziar bàyyi la nga nuyu gars yi lay suivre à travers Impro TV maa ngi leen di ziar di ziar képp ko xamante ne yaa ngi béggee Impro TV mhm. di jaajëfal waa Impro TV bu baax baax Euh, seen liggéey rafet na set na euh, franchement euh, dañ leen di ñaanal yàlla. Mhm. ba télé bi gën a ñoom gën a dem ñëpp xam ko ci àdduna bi daal. incha allah loolu laa leen di souhaité. d' accord grand cheikh ku wax nawetaan wax euh, supporter wax ambiance mm. waaye wax ay joueurs yoo xam te dañuy pare physiquement mentalement et moralement et je pense bele bi euh, ngeen di jël euh, trophée bi gis ñu leen fi woon mais gis nañ fi ngeen yokk ci doolu ñeex donc naka ngeen def ba recruter 14 joueurs yoo xam te ni ñu ngi woon ci leen ASC ngeen fexe ba indi leen ma laajee loolu dama ciy a gis nga booy ngi ci terrain bi mm-hmm. vraiment gis nga supporter yi <laughs> bon ci Gorom ca kanam ca kaw. Mhm. bon recrutement bi bon yomb na parce que xale yi ñoo ñu ko yombalal. ok vraiment ak ñu am amour ñoo football ci Gorom mhm. bon loolu moo yombal recrutement bi daal. Mhm. di ngeen gis surprise bi nga xam te ni que lors des matchs d'entraînement wala boog premier match départemental di ngeen gis surprise yi nga xam te ni que Gorom 2 ñu nekk mais ci biir recrutement yi donc ñëpp dañoo nekk ci commune Bam loo wax wala indi leen commune Bambilor waaw boo gisee recrutement lépp lépp ci biir commune Bambilor nga koo amul mhm. mais loo xas ba am da nga koy téye mhm. def naa boo xoolee li ñu recruté ci biir Bambilor moo po moo po foofu li nga xamante ne jël nañ ko ci biti daal mhm. euh, jëm Eh, départemental nak bo fay dem da nga wara am taxawin bo xamantene ni euh taxawinu commune Bambilor la wara a doon. maanaam du pour ASC Gorom 2. da nga représenter commune Bambilor. Mhm. kon fo waro fo dem ak yafous mhm. waro fo dem da nga fo dem ak euh, détermination ak conviction. moy mhm. lan out jour yu bax entre euh, jour yu entraîné. supporter yi top équipe bi. jappalé ko. lolou lañ si jublu pour yalla may ñu ndam. lolou motax bo wara recrutement bi. d'accord donc ngeen préparer départemental wax nga ko sen premier match di préparer aussi. seen premier match aussi nawetaan te vous êtes les tenants du titre yéen ñoo téye instant yi trophée bi seen loxo euh, donc lan ngay wax joueurs yi nga xam ñoom ñooy demaat ci terrain bi ak supporters yi nga xam te ñoom ñooy ànd ak ASC euh, Gorom 2 gunge leen départemental gunge leen nawetaan. waaw euh, joueurs yi li ma leen xamal mooy football yëfu góor la. demoon nañ daaw journal yàlla jox ñu coupe bi ñu ñu nekk tenant du titre li ñu bëggaat tey ren ji moo jëlaat titre bi. Mhm. te dara warul ko loolu entraînement fulla jom ak fayda. Mhm. kees ñu teg leen si condition yu baax ba bu ñu demee terrain mën a def li ñu leen sant. li may wax supporters yi mooy na ñëpp ànd am dal. supporter seen équipe si fair play. parce que nag ku ne football na fair play discipline loolu mooy mooy sport. sport leneen loo ci def lu discipline rek bokkul ci sport. maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw ci jàmm. Euh, ak salaam. gunge équipe bi supporter équipe bi. équipe bi am ndam. ñu àndaat ñibbise sans violence. sans violence leneen moo nekk objectif bi ASC bi. départemental jël coupe départemental. Guégaye <laughs> ah le secrétaire secrétaire général wax na ko président commission sport wax na ko jëli départemental eh, bu ñu ko waxee war na mën a nekk ah, parce que ASC Gorom 2 nekkul ASC bu ndaw mënoo lim fi ASC commune Bambilor 5 wala wala boog 2 ASC te doon na ASC Gorom 1 Gorom wala 2 donc mu nekk ASC boo xam te ASC bu mag la donc objectif bi ren mooy jëli départemental war na mën a nekk donc lan ngay wax waa zone yi peut que boo xoolee maîtriser wu ma carrément ci seen kii parce que secrétaire général bi jaar na fi. Mhm. war la ci euh, édifier wax na la ci leer a leer mhm. parce que bon commission président commission sportive laa kii. Mhm. bu dee wàllu jaune wala kii doo maîtriser wu ma ko carrément. d'accord l'essentiel que mooy dañu am euh, transparent. Euh, jàppale équipe yi nga xamante ne ñoo ñëw di football si Tëngéej. teg leen si ay conditions yu baax. ba nga xamante ne kuñ ñibbisee sant leen gërëm a dañoo nekk commune kon seen taxawaay dafa war a taxaw lu dara dekk loo xamante ne lii lu wér la biir Tëngéej mhm. nga xamante ne ku fa ñëw doo benn problème ñu teg la daal condition yu baax daal mhm. en gros merci beaucoup président commission sport grand Cheikh Sall ñu koy kontaan baax baax wax naa rek ah, c'est un ancien joueur de l'ASC Pencum euh, Gorom 2 c'est un ancien joueur de BFC donc commune Bambilor commune Sangalkam département de Rufisque baax baax a baax ay anciens ñu bàyyi mais bàyyeeguñu avec le capitaine euh, courageux de la G2 e. donc vous l'avez vu vous l'avez vu gis ngeen ko xamé ngeen je pense bel et bien que ni le capitaine courageux dégg ngeen à chaque fois suma ma dans les commentaires ma di parce que il a montré très très courageux sur les gazons donc su nekkee ci terrain bi day wone né sama ASC la gëm sama ASC la bëgg way, sama ASC laay téwal parce que suma ma dama joxé au fond Duma ma réservé wu ñu capitaine bi réservé wu ñu joueur bu réservé wu donc day joxé limam à 100 donc c'est le capitaine de la G2 euh, de Goxam 2 donc mom mi ngi taxaw alias Pico dama koy nuyu baax baax cap maa ngi lay siyaar

waaw euh, équipe bi moom mën naa ni mu ngi ci dynamique bu baax quoi. xam nga ñaari compétir ñaari ñaari phase moom yombul. départemental ak zonal yombul. faaw nga am effectif effectif bu bu suudee. effectif bu am qualité aussi. te gis naa ne mu ngi fi quoi. te gars yi ñu ngi ci ñu ngi ci rythme bu baax daal. te incha allah gëm naa ni euh, objectif bu daaw bi objectif bu ko bu ko raw lañ yor lañ am ren. ren la mooy objectif bi. bon ren objectif bi lan la mooy. suñu suñu bët si départemental bi lañ ko teg. dem jëli départemental bi jëlaat zonal bi. confirmé waat zonal bi. Mhm. incha allah c' possible ah. donc bu ñu waxee mën na nekk parce que ñoom ñooy l' équipe tenant possible wax na ko ah donc l'ami di président wax na ko sànq nee na ñoom fi waa jongul ba doon teg seen tànk fa lañ bëgg teg seen tànk et c' euh, fortement possible ah ni ko waa commune Sangalkam amee. Mhm. amee noonu ni nga maladie yi wax na ko sànq donc mm-hmm. ren ngeen def daal def 14 recrues yoo xam te kat mm-hmm. dafa ñëw fekk ci effectif bi nga xam te moom moo fi amoon yow en tant que un joueur en tant que capitaine de l'ASC lan nga gisee loolu bon loolu dama koy rafetlu parce que boo xoolee football bi léegi dafa dafa dafa quoi dafa évoluer mm-hmm. parce que léegi dafa dem ba équipe navétane yi dañuy consulter di jënd ay joueurs transfert de mercato di am transfert di am loolu c'est da ngay nekk ci koñ bi rek di daw. ba mhm. ba nawetaan jot rek laa nga ñëw commencé entraîner nekk ci mais léegi da ngay ga gars yi sama moromu joueur yi. dañuy mhm. dem compétir championnat. Mhm. championnat bi jeex. laa ñi nga xam ne ñooy président équipe yi. ak ñi nga xam ne tamit ñooy jënd joueurs yi. foofu la ñuy dem référé wu. di suivre joueurs yi. fa la ñuy xoolee les joueurs de qualité mën leen jënd indi leen si seen ASC. E. Euh, effectif bi ñu jënd man franchement daf ma daf ma daal. ok naa ne ay qualité de joueur yu baax a baax. Mhm. daal man moom laa gis parce que joué ndoo nañ presque plus de trois matchs. Mhm. kon xam nga te peut-être mën naa ne ñu si bëri man ak ñoom ñoo bokkoon équipe. Mhm. ñii ñoo nekkandoon AS Bambilor ñii dañ doon def ay sélection di génn. d'accord donc ngeen nekk li nga xam moo di euh, l'équipe tenant du titre ngeen jël coupe bi teg seen loxo bu ngeen di joué di leen a ci yéen. waaw bon d'une part dina am pression d'autre part du ko am quoi. Mhm. parce que xam nga rek euh, nit mën naa ni booy jugg booy dugg si benn affaire danga war a am détermination. Mhm. am gëm-gëm ne man lii may dugg nii kat dama koy gëm dama ko war a jëli. Mhm. pour quoi pas jongul bandul booy tudd Rufisque da nga koy tudd. parce lu tax dañu am gëm-gëm. def ay preuve am ok waaw def te football bi dëkkul fenn. Mhm. xam mën naa ne football mu ngi commune de Bambilor football bi mu ngi fi. Mhm. tey jii par exemple boo duggoon terrain Bambilor ñoo fi matinal. Mhm. période championnat boo duggee boo xoolee rek di nga xam ne football mu ngi si zone bi. kon mën naa ne pression dina fa am du fa am. nga daaw yow tu daaw yaa ngi xool suñu suñu début. début bi ñu am dafa catastrophique catastrophe. dañ ñëw suñ premier match BFC dóor ñu 4-1 mhm. mhm. ñu ñëw match départemental ñu dóor 3-0 3-0 xam nga mais teewul yéen jël coupe bi teewul ñoo ko jël loolu day wane rek ni mhm. ASC Gorom 2 équipe bu mag la ça montre que da ngeen a perte la guerre da ngeen a perte une bataille mais perte leen la guerre et yu solides yoo xam ne euh, mën naa ni bés mënu leen dépassé te aussi tamit euh, lu ñëw rek ñoom dañuy jàng ci loolu noonu après liggéey pour pour li ci kanam. d'accord parce que daaw dañu ñëw euh, teg les deux défaites. gars waat. xam nga tubaab daf koy wax sa pour pour mieux sauter. Mhm. ñu reculer waat defaraat xoolaat équipe bi defaraat toggaat boo xoolee gis nga bi ñuy ñëwaat dañoo ñëwaat ak doole. Mhm. voilà moo tax xam mën naa ne départemental bi ñuy dugg nii man mhm. gis naa engouement bi am. ak détermination bi am. bu ko fi ñu teg suñ tànk buñ ko teggiwul bu ñu ñëwee incha allah dañuy def ay résultats yu positif. d' accord loolu lañ ciy xaar te loolu lañ ci bëgg def ay résultats yu positif di côté di journal ak départemental donc lan ngay wax les supporters yi nga xam ñoom ñooy ànd ak ASC Gorom 2. bon supporters yi di leen euh, gën a ñaaxaat di leen gën a ñaaxaat ni leen ASC Gorom 2 équipe bu mag la te man Pico musuma daw musuma daay parce que lépp loo xam ne doon naa ko. ci commune bi. bañ may dégg ba nit ñi xam ma. ASC Gorom 2 moo tax. kon di leen tàllalaat suñu seeni loxo suñuy loxo pour ngeen gën a jàppaat gën a fonkaat ASC gën ko téye ñëw xam ne lii seen mbir la. te niñ leen bëggalee woon daaw dañ leen bëgg a nu ko raw parce que dañ leen bëgg yóbbu départemental kat turu gorom di yegg fu sori ba mhm. tëngeej ñi nga ñi nga xamul xam ko mhm. loolu lañ bëgg encore une fois di remercier remercier waat population gorom bi yëpp. Mhm. mag xale ba ci pa mère ñëpp bàyyiwuñu kenn. xam nga di leen remercier ci li xewoon daaw daaw gis nañ. ñëpp ci jàpp. ñëpp ci jàpp daaw. ba ñu am résultat parce que bu fekkoon dafa metti rek ñëpp daw kon mën naa ne bi daaw du yegg si foofu. Mhm. dafa metti dëkk bi ñëpp jàppandoo. Mhm. gëm ko ba mu mujjee neex. Mhm. kon encore une fois nañu gën jàpp rek xam ne gorom benn bopp la. kenn mënu koo xar ñaar aussi tamit lu ñu sumbandoo ñun ñëpp. gorom ge bu ñu sumbee benn affaire. dañ ciy am ndam. d'accord lan ngay wax pour terminer ñi nga xam ñoo di waa ñoom ñi nga xam te yow te ne waa zone kon yokk nañ doole ñeex ci nawetaan ren. Mhm, voilà waa zone man li ma ciy wax mooy ci côté côté mën naa ni xam nga suñu zone bi. Mhm. des fois dañ ci war di moderniser lu bari. ok da ngay gis zone Tëngéej bi. Mhm. équipe day dem final. seen trophée yi day day day day. lii daal voilà yu extraordinaire. Mhm. ñu bàyyi ci xel ak tamit xam nga nawetaan moom mën naa ni. Mhm. équipe yi mënuñu ci gagné liñ ciy def moo ëpp liñ ciy gagné. Mhm, ñu xool ci loolu des fois di ci di ci teg loxo di ci dolli daal. parce que équipe gagné am yenn yi moom day xaw a doy waar. aussi tamit ñu xoolaat aussi ni ñuy organiser match yi. organisé ma match daaw yu bëri même ba ci final. ay jours ouvrables lañ ko ay jours mhm. tamit am na am ñu suñu ay mag yoo xam ne ñu ngi liggéey. Mhm. dañuy bëgg di seeraan match yi. ci mhm. ci ci ci weekend bi mais duñ ko mën. laa loolu bu mënee nekk. ñu def ko bu mënul nekk aussi. D'accord. merci beaucoup ah, donc le loisir nous ñoom ñoo donc match yi nga xam te ni daaw mu ko woon am euh, ci commune bu Bambilor ah, donc ak commune Sànqam yëpp donc la plupart de nos matchs euh, jour ouvrable la woon même boo xoolee final yi sax euh, jour ouvrable lañ ko joué donc su ma nee aussi ñuy dans les week-ends nañu ko def te xam ne ñun zone la gëm zone la bëgg zone la ñuy parce que malgré vos maigres moyens yéen a ngi fexe ba nawetaan di am ci commune bu Bambilor commune bu Sànqam département de Rufisque yëpp ah. donc merci beaucoup sama gars ma jëlee li nga xam di le coach de l'ASC Goxom 2 sur votre émission Roupine de Nawetaan merci beaucoup capitaine ok merci beaucoup jaajëf tamit rafet na toujours dans émission au de Nawetaan donc wax na la Nawetaan du leen ci may dara lépp la topp mystique beeg recrute yeeg supporters yeeg échauffement délassement match yi ak décoration quartier yeeg lépp la leen Impro yu toppal dans émission au de Nawetaan donc fii nag ñu nekk ni je pense beneen bi kii ma taxawal du ma ko kenn ci commune bu Bambilor rawatina commune bi nga bu ñëwee stade <laughs> ay parfum yu luxe lay laal <laughs> sama grand nag mbokk ñi ma yar ma koy nuyu di ko siyaar baax a baax a baax grand Tapha. maa ngi lay nuyu di siyaar yal na yàlla nangu. Mhm. ñu leen di sant bu baax ci déplacement bi ngeen def jëm si ñun. Mhm. seet si ñu. Mhm. pour waxtaan ak ñu ci mbiru nawetaan ci émission bi tudd au de nawetaan. franchement ça nous droit au cœur. merci beaucoup donc euh, coach ngeen nekk l' équipe ngeen téye titre bi seen loxo di préparer départemental def ngeen ko mais benn compétition bi jotul ñu ci sori muy départemental bi mais benn euh, euh, euh, compétition bi muy journal seen play match BFC da leen a mais teewul yéen a jël li nga xamante ni trophée bi vous avez perdu la guerre la bataille mais pas la guerre donc fi ngeen mujjee mooy que ni yéen a jël li nga xamante guerre bi comment préparer foofu ces genre ce genre de match que vous préparez. waaw merci beaucoup je suis très content ma déglu question bu mel noonu. Mm-hmm. c'est pour vous dire que ni objectif bi ren gars dañ ko yéegal baar bi trop ba mu koy mon frère fu mu ne non gars yi nañ départemental bi lañ soxla kese <laughs> objectif bi jëli départemental lañ wax ñoom parce que revers biñ ci jël daaw ah ah. premier journée préliminaire ñu toog dafa des ci xolu gars yi donc ce qui veut dire que daaw je n'étais pas là surtout peut-être vers la fin mhm. mais au début dama demoon bon bi mu demee ba am ay quoi yàlla def ma dellu soit équipe bi yàlla jox ñu coupe mhm. donc ren bi ma ñëwee bi ñu ñëwee sama kër seet ma liñ bëgg a wax non coupe waxuñu zonal mhm. parce que ñun zonal pour ñun dañ cee war a teg suñu tànk zonal mom jaasi lañu yor. ku yóotu sa loxo ñu dag ko. kon ren muy BFC muy FC déggoo li ma wax zonal bi zonal bi dañoo yor jaasi ku yóotu sa loxo ñu dag ko ci soor ci kàttanu ci wax ci Mprod TV au bi de néewtaan lañu wax. ku bi de ñom ñu ko téye woon dañu ko téye yorala jaasi <laughs> ku yóotu sa loxo ñu dag sa loxo. ah kon ku bëgg sa loxo dagg rek dugalal. waaw ñun foofu lañ taxaw maintenant objectif bi nak moy ah. départemental aller le plus long possible. ñom c'est aller le plus long possible mooy jouer final. ok mais man je dis que on va prendre match par match. parce que on va trouver de grandes équipes là-bas. <laughs> on a fait un très bon recrutement. Je hmm. dama féliciter samay dirigeants. ils sont ratissés large. Hmm. parce que l'équipe boo xam à trois jours de la fin des démissions ben départ gamme. Ça, c'est quelque chose d'abord. Donc, les acquis de l'année dernière sont toujours là. Et on a renforcé sur tous les euh, côtés du jeu. le plan de ne sentiroon ne manqué hmm. on a c'est large dans la zone de Rufus mais aussi on est sorti du département de Rufus hmm. pour aller ailleurs chercher quelque chose pour aller peut-être à Mounkofi. donc franchement on est en train de travailler. pour hmm. aller jusqu'au bout des départementales. d'accord effectif bu baax ci ASC effectif bu baax ci équipe nawetaan lan lay def ci as d'abord confiance des supporters. et équipe pourquoi ko Un am supporters yu Hier, on était parti jouer notre premier match contre Den. <laughs> Mais bon, pour que l'auto puisse départ, boy, on a fallu, failli, des outils auto pour nous dire. Alors que premier match de préparation, là, uh-huh. c'est veut dire que nous, déjà, ils ont confiance à leur équipe. Uh-huh. Équipe -huh. Moi, je dis pas le staff technique. Moi, je parle des joueurs qu'ils sont. Nous savons une qualité, nous savons une valeur. Uh-huh. Donc, pour nous, ils ont une grande équipe. Donc, une grande équipe maintenant, ce n'est pas des hommes c'est une préparation. Ok. C'est une très bonne préparation Moi, j'ai une grande équipe. d'accord pour parler un peu des supporters donc je nañ des fois supporters yi les accompagnent les jours, mais ils mettent mettre la pression ils mettre la pression parfois un yi ils dañuy supporters yi donc quel conseil nga les supporters. non le fair play. Ok. parce que qui dit sport dit fair play Moi, de mes meilleurs amis dans le monde. Mhm. je les ai eus dans le sport. ok. am na koñ bu ma juddoo am naa fu ma yor mais sama xarit yi ëpp sama taaw mhm. ki ma ko tuddee sport moo ñu boole ñoo bokk koñ mais sport moo gën a tax ñu amoon ay liens mhm. ma tuddee ko sama doomu góor donc football moo demee noonu da wuti ku wuti yàlla mën na la may ko mën na la xañ mhm. mais te ñett moo am gagné nul wala nga perdre maintenant on a perdu nos deux premiers matchs l'année dernière ñoo mujjee trophée bi suñ dëkk ñoom ñëpp dañ koo fàtte te pourtant bi ñu gagné ñaari match entraînement

wax bu ñaaw mhm. du ma mere ndax sport lo wax dama xam sa xel mo tollu foofu mais dina wessu d'accord mais donc objectif bi moy ñom nañ nek suñ 12e gaynde nek suñ force mhm. buñ gisee lo xamni ne baaxul nag ils ont le droit ñeu taxaw ne li baaxul nañ leen ko changer mhm. et dañ leen di fekk ci loolu bu ñom li wax mo gën parce que am nañ wàll si équipe bi d'accord lo am nañ ci wàll ci équipe parce que ki di nawetaan wax les supporters parce que ñom ñooy pousser équipe bi à 100 c'est ça le rôle des supporters hein vouloir gagner le savoir perdre da ngeen di bëgg gagner waate fo ngeen xam ne nawetaan ñett rek la am fu muy tollu nul lay am victoire wala défaite mais amna fu muy tollu gagner ou perdre rek moo fa yem ah, da nekk guerre rek da rey mbaa rey la donc foofu la nekk mooy nekk sa cappaandoo ga boo joué sa trois matchs rek foofu la rek yi di neexee donc yeneen match yëpp donc boo xoolee daaw seen palmarès bi ngeen def mm-hmm. seen deux premiers matchs nekk woon match yu intense la malgré que équipe bi mag ngeen doon football mais fullaale woon ko woon à cent pour cent mm-hmm. tax na am ngeen ci defet fullaal ngeen ko sax mais def am ngeen ci defet mm-hmm. dóor mu toog ngeen di gagné ba jël li nga xam mooy coupe bi non est du nekk li nga xam te moo euh, euh, a waxee sax benn li moo di charge di dem l'équipe tanaaju ci di dem fu mu waat li nga xam moo di euh, nawetaan fu mu ëpp en même temps départemental fa mu jaaroon départemental mu jaaraat fa fa mu jaaroon nawetaan ren mu la jogo est du nekk benn charge bu nekk seen mbagg waaw man je dis que ni

on a staff technique étoffé kenn ku nekk ñeenti xel yooyu xanaa ñëpp mënuñoo juumandoo ci benn match waaw yàlla yàlla yàlla noonu ñeenti xel yooyu yëpp ñëpp nelawandoo noonu mm-hmm. non man je pense kon ñun côté boobu franchement ñu ci sant yàlla bu baax mm-hmm. le staff technique est étoffé a démarré tôt